réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu toll. Les Patriotes TV. coordinateur musulman du Sénégal tey jii moo nekkoon seen ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent si weeru koor ñun ñii mu nekkoon suñu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñett ñoom ñooñu nag mën nañ ne tey jii moo nekkoon seen séentu bu njëkk waaye nee nañu séentu nañ ko waa fépp daal ci biir réew mi daal waaye gisuñu ko fenn comme nag nañ ko doon faral di gisee wala sax ci la fois passée fi nga xamante ni fa la ñu wooree woon ñu séntu ko fi nga xamante ni moo di ma saar googee ñu gisee woon ko mën nañu séntu nañ ko fa tamit waaye gisuñ ko fu ci mel ni Louga tamit nee nañ séntu nañ ko fa waaye gisuñu ko fa benn yoon ah ñoom ñooñu nag kon mën nañu ne daal suba ak jàmm kon du nekk li nga xamante ni moo di seen bisu korite waaye daal dañuy mot li fanweer lu fan kon àllarba mooy nekk li nga xamante ni moo di seen bisub korite ñun ñu tamit maanaam ni ki jàmm mooy nekk suñu séentu bu njëkk am nañ yaakaar ne nag séentu bu njëkk boobee nag bisub alarba bi kon dana mel ni musulman yëpp dinañ wóoreendoo maanaam bokkandoo même korite di nekk nag loo xamante ni mën nañ ne lu fi gëj a am la nekk loo xamante ni nag lu fi raar la si biir réew mi di Sénégal wóorandoor ak wóoreendoo